muy waa conseil départemental bu Touba euh, ñu teewaloon fi mboolem conseil bi yëpp ñu tànnoon ci ñenn ñoo xamante ne ñoo leen fi teewal àndoon ak ñun waxtaan wi gannaaw waxtaan wi tam ñu ànd ñun ndogu bokk yi ci nekk nag daanaka ñun ñoo leen nekkal rek ci liggéey bi ñoom ñoo ñu nekkal foofu ñu nekkal leen fii ndax ñun ñi fi nekk ak ñoom benn lañ te itam saa bu ñu noppee ci liggéey boobu tam dañuy ñëw àndaat ak ñun liggéey bi yaakaar naa ne buñ ci tuddee sëñ Fallou wala ñu tudd ci sëñ Babacar mu doy sëkk ndax ay membre lañ ci daayira Moukhaddamatoul Khidma kon diggante yi diggante yu dëgër dëgër la yoo xam ne diiru weer wi dañuy ànd ak ñoom liggéey bi xay na du ñàkk bis yoo xam ne rek dañ koy jëmmal ngir ñu teewal yeneen bokk yi nga xamante ne ñoo nekk ci barab bi mu mel ne sëñ fàllu mooy jël ci turu euh, conseil départemental bi yëpp kon ñu teewlu ko sëñ Fallou bisimilah. auzu billaahi mina seytaani asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu bu baax di ziar tey juutal ci nuyoo beeg ziar bi alxalifatul murdias cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbacke Albachir di ko ñaanal ci suñu borom mu yàggal ko ci suñu kanam lool te may ko ak wér di jël ab nuyoo akub ziar ci président conseil département de Mbacke Serigne Fallou Mbacke ibnu Serigne Mbacke soxna Lo mi nga xam ne moo ñu fi yebal tey ci turu conseil département bépp bi ñuy dikkit ñu tànn ci délégation bi suñu sëriñ suñu lépp sëriñ Babacar Mbacké nekk membre conseil département de Mbacké jiite fa commission bu am solo coopération décentralisée ànd kook sëriñ Ibra Kane mi nga xamante ne si ne ñëpp xam nañ taxawaayam fii ci Muxaddamatul Xidma nekk conseil départemental jiite fa commission religieuse sociale bi ñu ñëw ñu ñëw ci turu conseil bépp sëriñ bi joxoon ñu ndigal ni ko yàggee di ko defee moom moo amoon yéenay dikkal boppam waaye comme ni ko sëñ Ibra waxee mu génn barki démb amoon ngan tey sëñ Babacar mii bi mu ñëw ay gan la këram waaye dana ko mënoo ñàkk bañ a dem teewal fa sama jëmmu ji ànd kook Fallou moom nga xam ne tey ci bureau vice président conseil département de Mbacké la bokk ñu dikkoon tey teew fi ci turu conseil département bépp ci jëf juróoy jii nga xamante ne si ne yéen koy jëf fii ci jumaa ji di ko jëfal Serigne Touba ndax man bi ma fi ñëwee daaw jéeg dama ci am ak yéemu ndax li may dëkk ci dëkk bi lépp lépp mu musuma xam ne lu mel nii am na fi ba lu toll nii di fi dogoo ci ay doomu aadama bi ma fi dikkaatee daaw la ma fi fekkoon damaa fekk mu yokk léegi laay waxtaan ak sëñ Babacar mii ci jumaa ji ma ne ko baa xam nga ne fii ak 10 ans budget bi ren bii 2024 bi day multiplier par deux te fii moom li fi am damay wax ne xëy na xéewlu sëñ Tuubaa rek la waaye yéen ñi ko def te du ko defee ci turu Muxaddamatul Xidma ak du ko defal jullit yëpp jiital ci Serigne Mountakha Albachir mi nga xam ne mooy xalifa central des Mourides yàlla na ngeen ci dajeek ngërëmal sëñ Tuubaa mi tax ngeen du ko def mboolem lu ci yiw yàlla na yaato yaato yaata ba daj mboolem fu ab jullit nekk ci àdduna bi suñ borom mën na ko yàlla na ko def ñi nga am mbégte lu yaatoo yaato yaatu ci dëkk gi am mbégte lu yaatoo yaatoo yaatu ngir di ko ànd ak yéen ci at mu nekkit ñu ci gën a feddali suñu kóllëre bu baax baax a baax ci suñu diggante ak mu Muxaddamatul Xidma relation yi ne am mënta passé ci wax naa ko léegi ci président commission sociale te lii dara jiitu ko ci sociale ay jullit yàlla yu dem liggéey ba wàcc wala yu dox ba yegsi ci jumaa ji waxtu dog fekk leen si ñu dikk dogoo ci loo xamante ne si ne doo ko yëkkate ci sa poos te ku ne xam ne ne lii xaalis a koy def waxuma la jëmmi jumaa ji waaye sa kër ga nga dëkk sax ak sa njaboot sooy génn da nga yëkkati ci sa poos ci sa jiwa yëkkati dépasse joxe ngir ñu waajala la ko ndogu kon ku ne xam na ne relation bi nga xamante ne si na tey conseil départemental war na ko am ak Muxaddamatul Xidma mooy ñu accompagner leen ci jëf ju réy nga xamante ne si ne yéen a ngi koy jëf te it noonu lañ ko fas yéene di ànd ak yéen tey ñaan ci suñu borom mu yokk ko baax a baax a baax a baax ndax kenn mënta wax Touba génn ci conseil départemental la wax. 16 yi nekk ci département de Mbacké yëpp yàlla dogal na ne Serigne Falloum suñ Mbacké soxna loo tey moo koy coordonné kon dañ wax ne Touba ci biirug njabootam la population bi nekk bu leen nekkee ci biir dëkk bi di jëf jëf juré ci biir jumaa ji di jëf-jëf ju am solo ji ci social kenn waru ci jiitu président conseil département de Mbacké waaye kenn waru ci jiitu membre conseil département bépp lañ cey def mooy di ko gën di ànd ak yéen incha allah rabbi ci at mu nekk di ci gën di feddalante suñu kóllëre jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ bi xanaa di sant di gërëm rek kàddu yi fi matoon a yëkkati yëpp suñ fàllu mi nga xam ne mooy vice président conseil na ko ci turu suñ fàllu mi président Sëñ Ibra Kan mii yor commission boobu it dox na liñ ci waroon a dox yéen itam ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax waxtu wu nekk niñ koy waxee rek suñ fàllu wax na ko léegi fii moom barab la boo xam ne ku fi ñëw ku ne da nga gën a yéemaat sëñ Tuubaa ndax euh, waxuma li fiy dogee ci aw nit nga xam ne war nañoo toll ci xayma yu mujj yi ay quatre mille sept cent et quelque maanaam ñeenti junni ak juróom-ñaar téeméer jëm juróomi junni. loolu ku koy dogal bis bu set waxtu wu nekk ku ne xam na ni loolu li ciy dem bari dog yu wóor a wóor a wóor la ñuy dog boo xam ne lépp nga ca. ñoom pizza ñoom yëpp daal mooy saucisson fromage gruyère ak yeneen ak yeneen yi ci aju yëpp même même lépp lu ñuy lekk tam dagan rek boo ñëwee fii da nga ko fi fekk loolu du ay caaxaan te gis ngeen gan ñi nga xam ne dañuy romb dëkk bi di dog di di di dem. bu leen fi bu leen fi dog fekkee danañ dog noo xam ne duñ ko dogee sax seen kër ñi nga xam ne it suñu borom dogal nañu dëkk fu sori wàcc war ñibbi danañ doge noo xam ne duñ ko dogee sax seeni kër ñi nga xam ne it yàlla dogal na xëy na seen wërsëg wut foofu ba ñoom ñëpp ak njaboot gi mën nañoo ànd ñëw dog si fii kon lii yéen a ngi liggéeyal yàlla ci toolu suñ tubaab bi liggéey boo xam ne amut àpp kon nag di ñaan rek suñu borom subhanahu wa taala mu boole ñu dimbali te nangul lépp loo xam ne def nañ ko fi rek suñu borom nangul leen ko man waxtu wu ne damay faral di wax ne daanaka sama yaram mi day daw bu ma leen di xool nii. Mm-hmm. ndax fi mu ne ñi fi nekk nii ñi coordonné liggéey bi. weer doo jaar sa kër daanaka doo fa doge doo xam sax luñ togg. ñëw fii rek te ku ne xam na ne gis nga sénégalais ni mu mel. Mm-hmm. jàppante bi kenn feel hay jaar kenn ko doo jaar fële yow nga bëgg defar moom mu ñëw bëgg a toppee ba topp bakkanam waaye maanaam dal gi ngeen di àndal ak lijjant ni ngeen di def ba lijjanti lépp ba mu tegee ci aw yoon. Mm-hmm. loolu murid yëpp amel nañ leen ci njukkal jullit yëpp amel nañ leen ci njukkal. ngeen xam ko ak ngeen bañ koo xam ngeen yëg ko ak ngeen bañ koo yëg ñëpp a ngi leen di sant ci loolu di leen ci gërëm di leen gën a encouragé di leen wax ne leen waxtu wu nekk ñu ngi ci seen ginnaaw itam waxtu wu nekk itam ñu ngi ko ànd ak yéen lépp loo xam ne yaakaar nañu suñ ko defee wala buñ ko waxee yëf yi gën a jëm kanam danañ ci def suñ kem kàttan soobee yàlla jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu yaa xayra ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi